bay Cheikh ak njabootam ga weeru koor bul ko wuute bay Cheikh ak njabootam ga weeru koor bul ko wuute bay Cheikh ak njabootam ga weeru koor bul ko wuute bay Cheikh ak njabootam ga weeru koor bul ko wuute di nga reetaan te jàng ca sukkaru koor wuute ko warul bay Cheikh aleykum salam eh ha dos wow ngi ci jàmm. naa def booy. maa ngi ça va bien. ça va bien. bien merci. bien bien. ramani ma ni tons. waaw waaye man de benn abasonjo laa bëggoon nga ñawal mako quoi mais nak abasson jo bi ha non ki mom dama bëgg bu gëné rek ah ah day hmm. ñun rek ñun day ñaw rek la def. waaw non voilà moo tax ma ñaw wuy ma. waaw jo nga koy ñaw. waaw jo la koy ñaw. waaw mais dama bëgg mu doon jo bu toj pexe gis nga tànk ya na doon genre passé rek comprendre nga. baa cigarette nga xam ne day centré wu. yaa ngi dégg. Hmm. mais ñu daameel ma ci suuf comprendre nga. daameel waaw. Ah. léegi benn tànk bi hmm. da nga koy jëlaat ci suuf nga daamine wàccal. ñaar ñaar tànk bi nga koy daamine. da nga koy daamine comprendre nga. tuba ji bi fii nii day doon genre caare yooyu xam nga li may yaa ngi dégg. mais ci kaw ah boo ñëwee ba fii ah. day doon genre col col col maawo yooyu quoi. mu centré wu quoi comme naan fi may expliqué. ba pare gis nga ñaari couleurs yi ah. déedéet déedéet expliqué bàyyi ko rek. yow ba tey ba daaneelagul te man xaw ma li nga bëgg a ñëw lan la. waaw voilà ñaari observateur oh, oh, la ñaari couleurs yi ah. bu bleu bi ak bu jaune bi. boobu dama bëgg xool nga defal ma ko fii mu doon mu doon ay galon quoi fii benn fii benn comme naan fi may expliqué. ba pare ñor gi ah mën na doon ñor kii quoi mu koy waxee fii dem. yow ku réew déglu rek déglu. xamante nga booy bu réew la. te yow booy est-ce que yow yaa ngi war yow yow wóoroo. non non non non yow waroo. man ma indi la sama tusit ni la wax ni ma bëgg nga ñëwal ma ko nga may am looy expliquer tamit. respecté leen tailleur yi respecté seen réewande yii na ngeen ko yemale seen kër xam nga yow lii nga may expliquer nii amul benn yar. ak réewande dong laa gis ci yow. mais bu bees la taille fine kooku moo ko solee xoolal billahi yow da ngay comprendre sax leen lii. nice waaw léegi man yow da da ngaa di woon sa tusit ci man pour ma ñëwal la. Ah. waaw jël mënoo koy ñaw booy tey ci bi ta nga yo sama atelier waaye. mënoo koy ñaw ne ci àddina bi yëpp ñu ci dàq ñaw yow duñ la ñawalee. d'accord ma yëg ko ci Abdou Joojo mu ñawal. waaw dama ci a a dama ci Abdou Joojo mu ñawal a ah ah a ku ci tux ba léeg-léeg daal di ne xamoo foo jëm rek nga nga ñëw ci nit ñi rek sonal leen nag ah ah waaw baax na daal. on maa leen weeru kan mo ci ndeer muni mani mu ni yaay saala baax na dafa dogal bo la yàlla nattoo danga koy nangu yeen natt bu dug ngeen ci keur gi nangu na ko yeen ngi fi demaguleen yéen yeen ngi woorandoo ñun woreegun fokk nu wut solution ndax jàppante bi mat bari na koor gi mayu ko sama âge mayu ko léegi nag kan mooy sol mbaxana mi maa def alaaju te du ma alaaju. ah bien léegi mbaxane mii bu mu denc ci sa bopp ma xam ne ndeer moo sol mbaxane mi dootuma leen jaawatale booy dem booy nelaw foo jëm sol mbaxane mi rawatina biir kër gi bu mu denc sa bopp ma xam ne ndeer moo yor mbax mi ndeer moo sol mbax papa tons lii danga koo yéex a def man seen a maar sonn naa si kii yi bu ko defee kii def jëye yi muy ndeer dina neex a xàmmee man sonn naa lii danga koo yéex a def kat danga koo waroon a def bu yàgg lii dina tax yow di nu mën a xàmmee nice Ja, tos tos tos, tos, Nee, nee, nu umple o ni dani da fi sun asa fi dani da conference. Le man bolak bi may sol. Mengo wala ma xane bi li per to kassa mais per bu yak sama kassa yow nak per. Li ma xane bi fi rek la yam ci kër gi mais genn bi kay. Man na Parali piri pi uranda ba da bay. Tisa. Parali piri uranda ba di ma. Wei sa pari bi da uranda ba. Uranda ba di bi da ba da. ay gendro jullo noon yow fan yëpp joxe woo ji xaalisu jinjeer bi nga daan joxe joxe woo dara nga ni xujj di mel ni ñooñu naan jam ñaal la jëm ñaal li yow ku yebaate nga alaaji cheikh mënta woor ba ngoon te naanul jinjeer te ku ci nekk dalaa sasoon jinjeer dinaa bëgg xaalis jinjeer bala nga fiy jóge nga jox ma ko voilà yow umpaañ jot na sax nag ma wax ak yow xam nga lu ma lay yëgal euh, sas woowu ngeen ma ngeen ma sasoon man desese naa ko teggeeku na dootuma leen jox njëgu jinjeer nii njëgu bisaab nii njëgu buy njagu ji gitaar pour muy clair ci seen i bopp gis ngeen yéen yéen dañ indi seen bopp problème lu leen ci li leen yàlla binde kooru boos gi ngeen bëgg a ñoddi te amul leen dërëm bëgg sëf yu sedd yi ci sama kaw laa dul nangu dama ni la yow ku la gis xam ne sama dijaay sax moonu tooñ yow tam moolu sedd da nga daan gobar jaasu doongu daan ñëw kon nag yu sedd yi bul ma mën naa defaat leneen loolu sax ah loolu loolu du sama problème yow loolu sa problème la booy dem conférence ba mbaxane mi ngay sol booy dem douche mbaxane mi ngay sol booy nelaw mbaxane mi ngay sol booy daagu ci kër gi mbaxane mi ngay sol gis nga yow yaa ngi mbaxane mi بولين تاكاليكو بولين تاغاليكو مو نيه لا دانكوي سول مو ناكار دانكوي سول تا صاح mom dal ma xani ma ngi non yango nice say, ah nice man damaa sonn de dañ ci ànd xama dem ko non elas waati sax man fa la wara a ndogu jaay nice, ngoon nañ ànd nga son ba xade bi gaay sa day nice moom sa mum bu la mom day nice quoi day dem da ah, gis nga boo ma sama kuuru nokos bi la lay tay billahi boo ma ko dóor ma tay yow leen dong la ku yebaa yow leen dong la boo ma moytu léegi ma rof na sama nijaay rek ma jàpp mais yow da ngaa réew yow da ngaa réew yow man mu réew man yow ma gën a réew man man waaw waaw ah, ah, waaw waaw lu leer laa ah, leen non li leer man mi maa koy leer xaasim sama kër gi du bordel xaasim yaa ngi wax a suyam paañ mais ne ko wax a xale bu ndaw tuuti xaasim en sa respect xaasim en sa éducation waa léegi man leen laa lay bëgg a xamal ndijaay nee ko bu ma laajati yëg yu sedd yi bàyyi naa ko dootuma dootuma joxe dara kii jënd may ma dama jàpp damay di jënt di sa boo ko moytu dinaa la roof yow kon dinaa la roof yow kon yow kon yow mën nga jël sa bagage sa dem ndega mënoo res yu sedd yi ah, joxetuma dara joxetuma yu sedd joxetuma kon doo ko fi lekk doo ko fi naan doo leen mbaam doo leen mel yëpp fi waaw yow yow yow loo moom yow waaye yow loo moom yow loolu loolu loolu ci da ngaa war a wax ak moom yow da nga loo moom yow amatul dara lu may joxe ndijaay xanaa lan la man amatul dara lu may joxe loolu moom yow amatul dara lu may joxe. Ah, amatul dara lu may joxe kon léegi nag kon nag wér si léegi. waaw waaw xam nga lu ma bëgg xam nga lu ma bëgg dee leen naan ci ndox mi dee leen naan ci ndox mi. ay alaaj waaw waaw ay sama nijaay. mbëkk rek nga jàng. laa ilaha illallah man ma jàng fente. laa ilaha illallah ay laa ilaha illallah. ay alaaj Cheikh. yow daal mën nga ni koo bëgg mu kawte tey rek tey moom yow yaa kawte yow boo nga jóg dogal Baay Cheikh ak njabootam nga weeru koor bul ko wuute yow Baay Cheikh ak njabootam nga weeru koor bul ko wuute yow di nga reetaan te jàng ca